والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيدان kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, sëñ bi ñu ngi leen ndokkee di ndokkee suñu mbokki taalibe bi yëpp bis bi tey na xam naa ne fàttaliku rek bis fàttaliku la ñëpp xam ne di xew lépp ndox Seydina Ibrahima la doom ja soxna sa ba yàlla def ci duñ def lépp ba bis bi tey moo ko waraloon kon am na yenn tambit yoo xam ne jël naa ko rek di gàtt waaye dama koy dama koy dama koy talxiis ñu mën ko jariñoo rek donte man li ma xamuma ko waaye bëgg rek ak cofee moo tax may leen nuyu tudd Sëriñ Tuubaa moom yi nga xam ne moo tax ñu ñëpp ñu bàyyi suñu partement bi suñu bàyyi fekk si ko di leen nuyu di leen sant wax di leen gërëm tey jéggulu yi bëgg wax nag ku ku ci dégg kàddu ko xam ne war na la da ngaa jàpp na ci jublu yu moo ci kenn ndax dugguñ ci nekk kenn bay yële ci looloon waaye ay nit bu fekkee dañoo bokk loo xam mënuñ ko séddoo la tax ñëw fii dañ ko war a xame te bu njëkk bi mën nañu war a sant yàlla baax a baax bi ñu yàlla boolee def ñu ay doomu adama te mën nañu ay mala mën nañu def yàlla bi nga xamee ne boole ñu xëy Seydina Muhammad alayhi waaye santaa yàlla bi mu boolee ci Seex Xadim mi xam ne mooy ku tay yonent bi alayhi salaatu wasalaam suuf euh, ñu ñu leen di nuyu bu baax den ndokkee te de ñaanal yàlla ñu teew at yu bari bari suñu doon nangu suñu yàlla tey fàttali sama bopp di dëkk bi rek li ñu fi indi bàyyi ñu fi te mooy jaamu yàlla te Seexul Xadim woote woon woote bu rëy bii ba ñëpp ko kon loolu fu mu mën ne ba àdduna lu àdduna wëlbatiku wëlbatiku rek nañ bàyyi xel bis boobu ak li tax ñu ñëwoon fekk si ko asgor moom bu waxee te euh, tënk boppam euh, daa war a jëfandikoo la mu te ñun dañoo dikkoon sëñ bi jëbbal nañ suñu bopp àdduna ak alaaxira alaaxira ak guñ fa bu ñu bëggee wax di suñu bopp ci àdduna nag dañuy xaw tax suuf lool kon nit ki la ma te kenn forcé wu woon yaa ñëw sa bopp jaayante loolu nga tënk ci ay ndigal bàyyi ci tere te sëñ bi digal lépp weesu kaar def li yàlla digal bàyyi di yàlla tere dafa mel ne weer yi ci ginnaaw day am na ay xew-xew sax jëruñu muy dig waaye ñoo di ko tuubal sëñ Tuubaa di ko tuubal sëñ bi nga xam ne moo fi nekk sëñ Tuubaa ndax la woon rek ak aadama ñàkk matam waaye du du du lenn ci murid yi bëgg sëñ Tuubaa gi ñu bëgg sëñ Tuubaa day gën a yokk waaye dootu dellu ginnaaw mukk keroog bi sëñ jóg ba wax ci kàddu gi la ñëpp dem delluwaat seen kër nekk ci la nekkoon te li ko waral lépp mooy ngelaw seytaan ngelaw ngelaw li xam seytaan ëpp na ko fi rek te muy coobare suñu borom nag ndax yàlla moom ndax seytaane mu dara waaye lépp yàlla ko ci doole rek bu seytaane ëppee ngelaw loo xam ne euh, tas na àdduna ba àdduna sépp euh, yar nañ ko euh, te kay gisu ko ndax mu doo ko gis muy di ñëw amul tànk amul laaf du la xeeñ doo ko gis loolu bu dikkee ñëpp di ko daw ni ñu ko dawee te ñi ñu ñi ñu dawee jàngoor jooju yi dawee ko dawee ko mooy yàlla yi ter yàlla yi mu gën suñ defoon nañu suñ tuwaa digal bàyyi li muy tere du ñu ragal kenn ku subhanahu wa taala duñu ragal mbas duñu dara ndax mbas mi ab jaam la ko waxee rek ab jaam la jël ragal dañu ragal ki ko bind mbas mi te mënu ci mën a musal kenn mënu ci musal ku ñu ñu gën a delluwaat ci jaajuwaaj te tuub te sàkk sarax te bàndaaq te delluwaat ci njàngale suñu tuwaay bu ko lépp di gën a am ndax suñu mooy suñu lay ndax wax na wax na waxoon na wax jëtan li man yukkil man waalaan yi wa soxli xëy di ku la man xalaan yi nekk na lay woo xam ne képp ko xam ne maa ngi sa mbir jëngoo jox suñu tuwaay mooy mooy mu nekk saw lay waaye dàq na lépp loo xam ne koo xam ne da nga ko noonu wala nga ko ginnaaw wax na akramtani ikraman ma saa faal wa ma taratu minka yaa rabbin yàlla teral ma joo xamee ne lépp lu mu rek na nañuy sant te bàyyi jàmbat jàmbat baaxut ab jur jàmbat bu ko ci àdduna te rawatina ku dëkk Tuubaa ku dëkk moom nga am rek ndax fa in malon sii sa waxoon rek lépp loo gis jafe-jafe rek lu yomb nga ñëw ndax wax nañ fi si Abdoulaye mas naa benn gis ku fi wax ne bu njëkkoon di Tuubaa ku gis luy xuy gudd da yaakaar nga jommi waxaat ne ku mës am ndox nga ne ko may ma ko mu ne ko dama lu naa jox lépp da jóg sama xar loolu ñëpp gis ko fi loolu lépp kon bu amee gàllankoor fi am ñëpp nañ xam ne gàllankoor àdduna waaye loolu bu ñu suñu bopp ñun ñii ndax ñoo li ñu wax ñoo ko defut ñoo war a jaayante Sëñ Tuubaa te xam dëkk bi kenn ko defaral ñoo war a suñu bopp defar ko suñu bopp bu kenn ku ne jàppee rek liñ bëgg dañ ko am waaye jëriñu tàll loxo kenn ku yàlla yàlla ñu ko ñu dimbali kenn sëñ Tuubaa dàlluñ kenn loxo ndax bi ñu ñëw fii ay bukki la fekk ak gaynde ak i rabi àll yoo ay nañ nant yoo xamee ni mu daq leen ñëw sam fi jaamu yàlla tax ilahi ba ba yàlla wuyu ko fi kon ku fi ñëw lépp la fa may gis ci jafe-jafe wala wala wala yu sew saan yooyu da nga war nga mën a muñ te bàyyi jàmbat ndax waxoon na yàlla fataxte baaba shukri li man xalaxa baaba shikaayat yi bii la de li mun xalaxa euh, yàlla ubbi na buntu buntu cant yëpp te ubal na buntu yi buntu yi njàmbat yi ndax bi ma maxa mi na balaay wa marat maa isaa bi wa fa si bi xarat euh, yàlla moo ko xam moo ko dàqal mbalaay balaa mooy mbas mi rek te te kenn gisu ko waaye képp ko xam yaakaar nga sëñ Tuubaa te mu na yaakaar nga te dëgg dama yaakaar dëgg ci yow na te ndax moom yàlla moo ko ubbi buntu xéewal yi euh, fataxte lii baaba xuyri muxlaxa baaba surri wa wa an xalaxa euh, buntu xéewal yëpp buntu buntu xéewal yëpp yàlla ubbi na ko tubal na ko baaba buntu lor yëpp kon loolu bu amee war nañoo delluwaat ci suñu borom tuwaat te te te xam ne yàlla rek moo ñu mën ci li li li xew ni ñu ko dawee mel ne koo xam ne da da da ngay daw loo xam ne question te ak dee dong lay doon te dee moom da ñaari yoon il faut nga dee moom kon ni ñu ko dawee di ko muslu nit ñi di ko li wérti wóor mooy nii ñu ko nii ñu nii ñu ci forcé suñu bopp ñuy force yi nit ñi bu ko force jaamu yàlla force yi topp yàlla force bàyyi mooy yàlla yi yàlla du teg daal nit ñi waaye na wala na doon ko bi shay min xaw fal jiwa naqsi min al amwaali wala fa su sama rabbi mu teg loo loo jaamu koo mu tegal loo ragal te bi muy musiba muy lu mën a xew rek jaamu yàlla la te yàlla ci boppam ab ku ku boo ko boo ko ragalul mu ragal mu sàkk loo ragal waaye bu ragalee yàlla rek di yàlla ndax euh, way taqi laa yee loo maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa ku ci nekk da li nga euh, kon bu loolu waaye itam may wax ne kilifa gi xam moo nekk suñu kanam mosuma toog mu mu Cheikh Modou li mu toog mu ne ne suñu kilifa gi nga xam ne coobare subhaanahu wa yàlla tànnee ak ak ak mbëggeel Sëñ Tuubaa mu nekk suñu kanam il faut ñu ñu ci ndigalam il faut que ñu gar ko ñu sàmm ko ndax bu ñu ko def mbooloo mi dana dana tasaaroo te mbooloo mi tasaaroo dara àdduna dara ko kon nañ ko jàppale te jàpp ko kenn ku ne ci ñun mu nekk war naa jàpp ne moo fi Sëriñ Muntaxa ndax jaaru ñëpp am nañ Sëriñ Muntaxa muy sëñ Sadio ñoo ay way juróom ak magam yi jaaroon moom Cheikh Modou Nabi Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na yàlla doon seen leer ñu fi am ngaa ju taxaw taxawaayu Sëriñ Muntaxa na mu taxaw ci bokkam yooyee ñu jàppale ko te dimbale ko ci liggéey bii yàlla dimbale ko ci ndax ni mu mel koo ci ko topp doo doo am doo jariñ ci moom weef gi ak laabir gi ak euh, nooy gi koo jaar doo jariñu na nga xam ne coba Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Fallu daana wax ne képp ñu tudd tudd Sëriñ Tuubaa dara nga moom waaye ku toog jotaay Sëriñ Tuubaa leneen moom kon nañu xam nañu xool Sëriñ Tuubaa ci moom rek te muy xool ci moom lenn lépp lu ñu digle nañ ci fas nekk te lu ñu ko defee dana dana li ñuy wax li dama dama dama ko siif donte Sëriñ Tuubaa Yonent bi sallallahu la ko wax waaye ma ko ñaan ko loolee Sëriñ Tuubaa def ko ci moom ndax xam nañ képp koo xam jalgati nga mbiram jërëgati woo mbiram sëñ jërëgati woo mbiram sëñ Muntaxa mbiram Sëriñ Tuubaa nga jalgati mbirum Sëriñ Tuubaa nag koo jalgati mbirum sallallahu alayhi wasallam nga jalgati mbirum subhanahu wa taala koo jalgati mbirum suñu borom subhanahu wa taala nga jalgati te la mu waxoon ne mm, li muntaxaa moo ci saatun laa yubalisuha ila saqiyun taridun laa yura niama képp ko xam ne jóg nga rek nee na kawteem ko képp ko xam ne jóg nga ngir jalgati mbiram wala nga ci yàlla ko gis doo ko xam teraaxe texee di mën a ñeel ak walaakaan kon yàlla yàlla mos ñu lool kon sëñ bi maa ngi guddal ndax waxtu yi xam na waaye ay taalibe lañ ñi fas yéene jalwaa suñu bopp sëriñ bi gën a jaayante suñu suñu taalibe di ko suñu lépp ak suñu fépp ak suñu yëpp te ñaan mu nangu suñu taalibe te buñu gis suñu bopp mukk ci àdduna lu àdduna yàgg-yàgg lu xéwal yi bari bari lu natt yi metti metti nañ xam ne sëñ bi rek la sëñ bi di mooy sëñ boobu yàlla nañu yàlla saxaat ci mbiram kon sëñ Muntaxa bay dii sa waay mu wax maa ngi koy àbb donte sallallahu alayhi wasallam ko wax waaye mun taxaa nga tudd te yàlla moom ànd ku ni musamma musamma kenn ku nekk turu leen tudde rek am nga ci wàll kon mooy wax ne sëñ boo xoo ne bi jaahi muntaxa li umma ixaasatan takfi asa wal xumma laysa li ummati nabi siwaaka yaa waaxidan aksat li jadwaaka kon foofu laay mujjee samay wax te ñaan bayit yooyu yàlla na ko yàlla def ci réew mi def ko suñu dëkk bi tey soññaat sama bokk taalibe yi ci liggéey bi nga xam bokk naa ko ñoom muy liggéey Touba Ca Kanam sëñ bi wax na naa naa ko jotliwaale nañ ci góorgóorlu fas yéene nee na juróom-ñetti fan ci weeru ut bi ñëw insha allahu ne mooy mbedd yi mag ba mbedd mbedd du fi taati bu soobee yàlla lu ñu ci mën dañ koy def war nañ képp xam yàlla joxoon na doole adduna ak saayir ak baatin loo ci mën rek nga ñëw ànd ci ak ñoom ku am suuf indil benn indil ku am camion yoo xam ne vidange na indi ko ko jàll ku am sax sa sa ñaar dërëm wala dara dañ sa camion suuf sëkk fenn na nga ko def waaye nañ ko tàmmee suñu mbiru kër yi mbedd yi sës kenn ku boo ko tey nañ ko jëmmal jàppale ko te dina san ndax kuréel bii ngeen nekk bi ñu ko waaye wan ni ñëpp gis nañ seen loxo sëñ Tuubaa koy yokk baax a baax ndax euh, ñetti weer yi nga xam ne moo gën a tar ci réew mi ñuy waxte waaye sëñ Tuubaa daa ko mu kiris moom dafa mel ne mbir mu àdduna gën a jafe-jafe rek euh, yàlla li gën a yokk mbiram mois de avril bi weesu soixante-dix-neuf euh, dix-neuf millions am nañ ko ci mois de mai cent vingt cent dix-neuf millions am nañ ko ci mois de mois de juillet mois de juin cent vingt-neuf millions dugg na ci waaye li mu gis fu mu jë fu insha allah jox ngeen ñu ko waaye fi mu dugg dañ ko gis kon fas yéene liggéey dëkk bi incha allah pompe dëkk bi yooyu yooyu bari na weñ yi bari na waaye fas fan yu néew incha allah da nga gis ñu ñu ñu saafara ko waaw nañ daal murid yëpp ñu jàppale ñu rek te xam lii fi Sëñ Tuubaa la kenn moom ko du Sëñ Tuubaa murid yaa ko yor ñoo ko def maa ngi sant bokk fi teew yëpp di kilifa eh, suñu bokk yi nga xam ne bokk ñoom maamaara bokk ñu Sëñ Tuubaa bokk muy wàkk si affaire ak ñeneen ñu teew ñëpp ak suñu bokk njaay yeeg suñu bokk looyee looyee li ak seex si nga xam ne dañu fee bàyyi seen jullikaay yi ñëw fekk Sëñ Tuubaa ànd suñu ñëw ci barabu suñu fàll bi julli euh, ndax euh, diggante ñaari weer yeeg fukki fan yi rek lu ne xew na fi yàlla mosul te bu ko soowoo def boole am ñu fi manqué am ñu fi am ñu fi dëpp yàlla li sàmm asibis tey bii kon yàlla mi ñu sàmmoon tey jii yàlla ñu sàmm ñu fekk ko déwén te kenn bañ manqué te yàlla defal ñu jàmm defal ñu xéewal defal ñu sutura tappi suñu xol mosul ñu ci añaan mosul ñu rëy mosul ñu kañaan mosul ñu nafeq mosul ñu bokkaale def ñu ñuy dëgg dëgg sëñ Tuubaa doon dëgg dëgg taalibe sëñ Tuubaa yàlla bu suñ dara yàqu ñuy sant góor ñi sant jigéen ñi rawatina jigéen ñi ndax euh, ñoom ngi seen taxawaay ci liggéey bi ñu jiite ak gis nañ ko ci baax baax euh, bëkki dem rek euh, junni bu fukk ak ñett joxe ko mooy mooy mooy mooy soixante-treize mille kii treize mille treize joxe nañ ko joxe ci fukki mi ak ñaar ak ak téeméer junni yoo xam ne joxe nañ ko ay ndimbal nit ay tabaski loolu suñu bi dina ko jot yow nga xam ne koy namoowuñu ko nag waaye dañoo xam ni ñu ko joxee il faut ñu leeral ko ndax nit ki bu la joxee dara war ngaa xam fu mu ko dugal loolu laa bëggoon leeral ci liggéey boobu rek dinañ gën soññ sama xam ne bu ñu ko jafee kenn ku jàpp ci rek li suñu tubaab am dëkk bi di bëgg dana ko am dëkk bi ñu am kon maa ngi jéggalu ndax euh, waxtu yi xat na te dañu war julli ajjuma te julli gi fara sunna la waaye gée moom waaye bu ñu topp bu ñu topp yu fi ndokk naa yi ba may julli ji euh, bu may tuuti rek dangeen di naan ataay bu xaw tàng euh, dem rek ngeen jigal ma dem julli ji ajuma dikkaat bu ngeen dikkee mën a àggale waaye bu ngeen toppee euh, rek yu sew saa yooyu rek xeet yi ma mos faal gee ma mos res yu ma def nangam boobu lay indi maa ngi jégalu te ñaan yàlla nañ ko teew at yu bari te nañ yi sëñ àll yi te kàddu yi ma yëkkati si kanam jot li euh, jub la lu rek waaye man lu ci dëng man maa mënut maa mënut wax ci waaye sama yéene xatul fenn ñaawut ci kon yàlla na yàlla taxaw taxaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu وسرما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اختتما يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل وكن لنا كل نجاة وفلاح وفقنا لصواب وسلام